fii si Dakar Buzz chaque samedi ci Buzz de la semaine di leen dalal jàmm tey nag dañ koy dooreek wàllum immigration clandestine ndaw yi riire dinañ ko bés yi ak doole ba sax lim gu takku si ñoom rek ñàkk nañu seen bakkan ci géej gi gannaaw rek ba ñu buggee dem ngir wuuti dimbale waajur kenn nag ci ka nga xamante ne nii ay rescapé lañu ñu koy wax kura moom moomee sax kura moo nekkoon rek benn jigéen ci gaal ba nga xamante ne nii moom moo échoué ca Almadi ci ay booru 3 heures du matin bés Sène daal dinay dikkaat rek ci voyage am boobee mu doon nag célibataire juddu ci àttu ba 1995 dëkk Kayar Koura nee na rek 300 000 francs CFA la daal rek joxe ngir bokk ci voyage boobee nga xam ne rek nee na dara duggalu ko si lu dul situation bu métti ba nga xamante ne ni mu ngi koy dund foofee ca Kayar ba loolu nag weesoo la Koura daal di xamle rek ni si ay boori une heure du matin la ñu embarqué ca plage bu Soumbédioune ngir rek dem Espagne biir gaal googee nee na sax lim gu takku rek euh, disparaître nañu si euh, ba loolu weesoo kurane rek ba bateau marine bi mbëkkee seen gaal gi mu dal di këpp ñoom ñëpp rek dañoo daanu si biir ndox mi ba rek ab frère bu ñuy wax rek Moussa moo fay fekk si ko ngir wëllu ko dimbale ko rek ba boppam bi génn ci ndox mi laata mu koy jox bidon bu vide ngir rek mu bañ a diig laata rek muy mën a embarquer difficilement ci navire espagnol bi di lu doy waat tamit la nga migration clandestine lu ñeel nag capitaine seen gaal ga nee nañu rek moom moomee dafa ñàkk bakkanam leneen Xadijatu Kamara am bak ren ay atam toll si ñaar fukk moo daal di ñàkk bakkanam ci ab accident bu doy waar lool moom moomee nag Xadijatu moto Jakarta ba mu jëloon rek moo daal di mbëkkanteeg beneen moto Lifan ci booy dugg Nioro si noonee rek mu daal di ñàkk bakkanam ci saa si gannaaw rek ba boppam bi daal di rek coincé ci ab pot lampe li ni mel nag mi ngi xew àllarba ci ay booru juróom-ñeenti waxtu ci suba ka doon dawal nag Jakarta ba mu jëloon ak keneen ka doon dawal rek moto Lifan ba ñu mbëkkanteel. ay gaañu gaañu yu métti la ñu jëlee ci accident boobee lu ñeel nag euh, nouvelle bachelière boobee di Xadijatu dëkk rek ca commune bu Médina Sabax moom moomee da doon dem rek ca diwaanu Nioro ngir rek euh, lijjanti mbirum orientation wam waaye nag du mës sotti ndaxte rek ca yoon wala dal di accidenté ba ñàkk ci bakkanam laata rek ñuy yóbbu néewam ca morgue hôpital bu nekkee ca gox ba yàlla na ko yàlla yërëm ngir lu mu weccante ay kàddu yu ñagas ak chefu chantier ma ci atub 2016 si lu ñeel rek euh, wàllum lañ leen di fay bés bu yàlla sàkk mason bile di Mohamed jaban dafa jël rek ay peel ak ay brique daal di koy yenn chefam boobee di Abou Jon tax rek mu ñàkk ci bakkanam ca saasi waaye nag yemu ca la ca gën a doy waar moo di rek koo jël daal di koy suul ca seen chantier boobee nekk ca Tiwaawoon Pël comme si que du doomu aadama loolee tax rek ba soo moytuwulee maçon boobee dinañ ko tëj rek giiru dundam ngir meurtre vol commis avec violence ak inhumation sans autorisation euh, lu tolloog nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre la ñuy àddu rek ci ay mbiram juróomi doomu aadama yu bokk rek ci benn famille ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci ab accident bu am rek ci guddi ba gaawoo jàpp di dibéer ci wetu Fatick yeneen ñeenti doomu aadama nag jëlee nañu tamit ay gaañu gaañu ci accident boobee am si ay booru 3 heures du matin 30 minutes ci booy génn ba nag sapeur pompier yi ñoo leen dal di yóbbu rek hôpital régional bu Fatick accident bi mi ngi am si ba benn auto particulier dal di rek mbëkkee ginnaaw benn camion malien ba nga xamante ne ni rek dafa pan ci tali bi bu ñu sukkandikoo nag ci gendarmerie ñu nekkoon ci auto particulier boobee benn famille lañu ñoom ñooñee dañu doon rek dem Kaolack gannaaw ba bañ jógee ko Dakar ngir rekk ab mariage ba ñu fa waroon teewee aywa ma àddu jëmale ci gàmmu 2020 bi ca Medinatul Salaam kii di soxna Aida Saliou nag daal na si dres rek taabilam ak i ay bernde comme nu mu ko tàmm di defee si anam bu taaru lool nga xamante ne nii rek dara du manqué comme ni ngeen koy gisee noonu rek ci image yi mu doon nag la nga xamante ne nii firndeel na ni soxna Aida màggal na rek gudd ba yónnent bu tedd bi foofee ca Medinatul Salaam donte sax préfet bi Mbour daal dina gàntal rek émission waaye nag ca këram def na rek lépp la nga xamante ne nii war na koo def ci bés boobee. xibaar bu nakkari daal dinay jib soxna Aida Dem di rek soxna Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daal nay rek nelaw ni ki démb si àjjuma ji ca Fann résidence gannaaw rek ba ko feebar bu yàgg tëralee woon moom nag ni ki démb sax la ñu amal levée du corps bi laata rek ñu koy denc ca Tiwaawoon ci teewaayu famille bi képp ñu ngi koy ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaaree ko ci aljana yu gën a kawe moom moomee di rek soxna Aida Dem foofee ca Tiwaawoon lay des ak yéen ba tey waaye bile yoon rek ak liggéeyub njeextalu juma ju mag joojee nga xamante ne nii xalifa général des Tidiane di rek Serigne Babacar Sy Mansour moo ko initié njiitu réew mi Macky Sall nag daal dinay rekk làmb poosam daal di say def nekk rek participation wam bu ñu sukkandikoo ci quotidien national bii di Le Soleil njiitu réew mi Macky Sall benn milliard si suñuy koppar rek la joxe te nee nañu rek bu weesoo Sénégal dina jël en charge euh, ay projet yoon yi ak tamit rek wàllum assainissement bi ñu xamle ko ci journal boobe di Le Soleil ci njiitu réew mi mag ki laay des ak yéen ak bi yoon rek conseil des ministres ba mu doon amal gannaaw rek remaniement bi ci seen conseil boobe nag la njiitu réew mi dal di fale rek kii di Thérèse Faye njiital fonds de garantie des investissements prioritaires ñu naan ko FONGIP moom nag Thérèse Faye mi ngi wuutu rek ca boobule poste ba tey rek ci lu ñeel politique gannaaw passation de service bi ancien ministre de l'intérieur bi di Aly Ngouille Ndiaye perdre le temps benn yoon gannaaw rek ba mu delloo ci beneen postam bi di maire de Linguère ci noonu nag la waxee rek ay partisans wam ngir rek ñu bàyyi sentiment yi de côté te dellu rek ci lii di liggéey bi ba loolu weesoo Aly Ngouille Ndiaye daal dinay rek lancé message njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba mu xamle rek ni président moo yor pouvoir constitutionnel bi xamante ne nii rek euh, moom mooy tànn ñam mu bëgg a liggéeyal si gouvernement wam ci noonu yi nag Aly Ngouille ne nag euh, gunge nañu ko depuis rek euh, gouvernement wam bu njëkk ba avril maanaam ñeenti fan ci weeru avril ci atub 2012 ba benn fan ci weeru novembre atub 2020 bi ñu nekk di rek juróom-ñetti at yu ñu ànd te yaakaar na ni rek nee na ñoom ñaax ñooñ ñi dañuy wëyandi seen ànd ba loolu weesoo nag ex ministre de l'intérieur bi daal dinay rek leeral ni bokkul mag bi waaye nag mi ngi ba tey rek parti APR laata rek muy sant yàlla ndaxte nee na rek génn na si tey waaye nag ak si gi ca kaw di lu ëpp solo laata muy naan nag bu si kenn jàppal lenn kii di njiitu réew mi mag kii Sall su ma noppee foofu damay jubali ca conseil économique sociale et environnemental ñu naan ko 16 ex présidente ba nag di Mimi Touré démb rek ba 11h jotee la jox lenge yi ka koy wutu di Idrissa Seck laata rek muy déposer ay rapport d' ma waaye nag amul passation de service ak rek ku ko wutu di Idrissa Seck gannaaw rek ba Idi ñëwulee woon démb donte sax Aminata Touré bëggoon na lool amal lii di passation de service bi ba loolu weesoo nag Aminata Touré daal dinay rek eh, tàggatoo ca CESE laata rek mu yëkkati ay kàddu di jaajëfal ña nga xamante ne ni ñoom la àndaloon ci liggéey bi waaye nag dëgguñ ko benn yoon fa mu tuddee njiitu réew mi Macky Sall maanaam daal jaa jaajëfalu ko fenn laata sax muy xamle rek ni àdduna bi dafay continuer yooyu lay kàddu daal la Mimi Touré yëkkati démb ci tënk ci ba muy rek eh, jébbal lenge yi kii di Idrissa Seck eh, ku nekkoon ministre du pétrole et des énergies di Makhtar Cissé lenge yi ka ko wuutu di rek Aïssatou Sophie Gladima ci noonu nag ki nga xamante ne nii mooy Makhtar Cissé daal dina si rek prox ndoolu génnee la mu dencoon ci xolam moom nag nee na état amul rek lii di coloré laata rek muy yokk si ay kàddoom ni du ñu fàttaliku yenn saay rek mukk acte yu mag yu ñuy posé ndax rek ay erreur ak i rek ay faute képp la ñuy bëgg di fàttaliku Euh, ba tey rek ci lu ñeel politique gannaaw ba ñu fësalee vidéo boobee nga xamante ne ni da si xamal ay euh, militant wam ne rek léegi ñoom ñooy euh, séddale ministre de l' artisanat bu bees bile di docteur Pape Amadou Ndiaye daal dinay rek addu ci vidéo boobee di rek seetal boppam ak ay leeral yamu ca indi moom nag nee na fa mu waxee ak rek contexte ba ñu génnewee ay kàddoom daa wuute lool si noo ne nag la delloo rek di leeral ni nekkul ne lu ñu wone ci bi bëggoon a ay militant wam agent ay kii tamit ay xaritam bu ñu sukkandikoo nag si moom dañoo dagg boobule vidéo soppi ay kàddoom mu xamle ko moom ministre bu bees boobee ñu dënk wàllum a ci rek di berbale ñu génn leneen gannaaw ba mu jeexalee mission wam ci côté njiitu réew mi mag Macky Sall ancien premier ministre bi di bun Boun Abdallah Dionne daal dinay jaajëfal njiitu réew mi Macky Sall ngir kóolute bu mu am ci moom ci diiru juróom-benni at ak genn wàll li nag mi ngi ko xamle ci cérémonie présentation de condoléances ya mu teewee woon laata rek muy fësal moom Boun Abdallah Dionne engagement wam ak loyautéem ci njiitu réew mi Macky Sall tey xamle rek ni pare na ngir rek gunge ko ci bépp service njiitu réew mi nag eh, nga xamante ne ni demoon na kër ndem si yàlla Iba Der Thiam ngir jàll ko famiyam daal na fay xamle sax ni rek eh, université bu Thiès eh, professeur Iba Der Thiam la ñu koy dippee neexoo amatul ci diggante kii di maître Abdoulaye Wade ak jeune protégé bi di Bara Gaye bu ñu sukkandikoo nag ci le témoin secretaire général bu PDS daal dinay rek dàkk maire bu yëmbal sud bi ci collège des secrétaires généraux adjoints ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci journal boobee papu soppi bi di lay Wade dafa mer lool si lu ñu saccagé maanaam lu ñu yàkkate permanence nationale partem boobee nekk rek ci VDN bi nga xamante ni génnewuñu si kii di Bara Gaye ba mu examiner nag rapport bi ba noppi maître Abdoulaye Wade daal dinay jël àllarba bi ñu génn benn décision administrative ngir rek réaménager li nga xamante ne ni mooy secrétaire national bu PDS ngir rek gën a jox ay responsabilité yenn militants yu ñu xam rek ngir seen engagement waaye itam ngir seen loyauté Euh, ba tey rek ngeen di teewlu buzz de la semaine fii ci Dakar Buzz Khalifa Babacar Sall ak rek Barthélémy Diaz daal di nañuy teewee samedi bële ñu génn euh, li nga xamante ne nii mooy meetingu leader mouvement renaissance pour l'action citoyenne euh, si noonu ne nag maire bu Mermoz Sacré-Cœur bi di Barthélémy Diaz daal dina si prox ndoll rek gi génnee lu nekk ci xolam sans rek mu limaale ko ci traître bi Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies Barthélémy nag nee na rek jam nañu ko si ay booru 3 heures Parcelles Assainies euh, sàcc poste député am foofee ca Parcelles Assainies ndax rek nee si élection député yi ba 23h euh, jotee listu Khalifa Sall moo woon département bu Dakar waaye nag nee na dafa amoon kenn si ñoom ku ñu wóolu woon nee na euh, kookee nag moom moo leen war dal di fay téléphone am ba loolu weesoo Barthélémy rek renvoyé nañu ko parti socialiste fekk rek mu amoon ay ambition si parti boobee tax rek mu rangé ci côté kii di Khalifa Sall ndax rek ay qualité am ak i ay principe am ci noonu Barthélémy rek dinañu xeex ngir indi ay coppite ci niveau local beeg national bi ndax rek politique ay valeur moo ci jiitu. ma du jëmale ci mbirum borom ñaari tur ya doon amal mariage ca Mermoz tollu si ñaar fukk ak juróom ba taxoon rek ñu daal di leen di teg loxo bu ñu sukkandikoo nag ci libération online fukk ak ñett si ñaar fukk ak juróom yooyee daal di nañu leen di euh, rek bàyyi tribunal des flagrants délits nag daa accordé rek dut fukk ak ñaari prévenu yi si waxtu ba nga xamante ne nii rek euh, bàyyi nañu fukk ak ñetteel bi euh, juróom-benn weer nag la ñu teg rek si ndodd ko organisé boobule fête ak rek marié bi. ñu des nag si groupe bi ñetti weer la ñu xamle rek ne moom la ñu teg ci seen ndodd Euh, people dama koy doo léegi rek euh, soirée ya nga xamante ne nii tàmbalewaat nañu ko ni ki démb rek ci gaaw bi juróom-benn fan ci weeru novembre euh, Faramareen bi nag di Wally Ballago Seck doon amal soirée ca timis si waxtu ba nga xamante ne nii Sidi Diop tamit mi ngi ca doon amal soirée ca Five si doonee nag ñu gis rek fan si dem wuyu ji seen woykat yooyee ca timis nag ñu bëri ci Faramareen ni ñoo nga fa woon Wally Seck jot fa fental woy sa kii di moo géet waaye nag ba mu koy woy di di Awa Balde ak rek njolle ak ñaaxaraña ñoo ko doon battre rek koppar gu bëri loolu lu ñeel nag soirée kii di Sidi Diop dañ koo dal di rekk yàq donte lim gu takk lool ci ay fansam ñëwoon nañu wuyu si ko waaye nag ba soirée ba xumbee rek la am ku fa sàndi ab pompe à gaz ñii di xëm ñii di daanu lépp rek dal di jaxasoo Sidi sax dañu ko tëngoob rek di ko yóbbu muy jooye waaye nag di ay fansam tamit mer nañ si li ni tax rek ñu nekk rek di ñaawlu li ñuy def ne rek di Diop yàlla moo ko taal kenn mënu ci dara di mbir mu doy waara leneen Ndoye Bane daal nay tudd rekk bés yi doomam bu jigéen bu gane si àdduna moom nag animateur groupe leneen Ndoye Bane daal dinay tudd doomam bu jigéen bu gane si àdduna bés yi moom nag animateur groupe Futurs Médias bi àllarba rek la tudd doomam joojee nga xamante ne ni mi ngi ko dippee ndem si yàlla Adja Degen Chimère di la nga xamante ne ni rek ñëpp dañu ko rafetlu image yu ngénte bébé Degen Chimère yi nag bokk na si yooyu ngeen di gis ci écran bi ñu koy ñaanal mu dund te barkeel moomu doomu Ndoye boobee ak Marie ma àddu ci xibaar bu nakkari bu jib bés yi talentueux jeune bayfal bii di bambataal voix wu zikru la dem na di xibaar rekk bu nakkari si ay taalibe borom daaru muxti moom moomee nag bambatal si gaalu migrant bu échoué ca goxu mbaaj rekk nekkee ca Saint-Louis la bokkoon ba ñu leen nag débarqué ba noppi la ñàkk bakkanam gannaaw rek ba mu doon yëggee méttit wu tar ci yaramam mu nekkoon nag légende ci wàllum zikr baatam bu neex doon na rekk la nga xamante ne ni ko natable moom moome nag daal nañu koy denc sax ba noppi eh, ci teewaayu lim gu takkul lool si ay doomu aadama yi nga xamante ne nii ñu ko gunge woon ak ay son zikrula yi mu bëggoon lool ci xolam yàlla na ko yàlla yërëm mu mottalee ndawam ca aljana Euh, cuisinier traiteur bu siiw bi di Signar Mbeng ñu gën koo xam rek ci turu ba papa gastro soo moytuwulee rek dina tëdd juróom benn weeru kaso gannaaw ba ko soxna samu doon bëggantel yóbboo euh, ci kanamu yoon ngir abus de confiance si mbirum suuf euh, papa gastro nag taxaw na sax alxemes bi ñu génn ci tribunal des flagrants délits bu Dakar ngir escroquerie gannaaw rek ba ko soxna si tuumalee ni dafa jaay ñaari nit benn parcelle ba mu ko sedde woon papa gastro nag la mu xamal rek ña ko doon teewlu moo di rek eh, soxna soosé mu doon bëggantel daa bokkoon rek sa ñañu dëjëti woon cité Tobago eh, ñu daal di koy dédommagé ak ñaari parcelle ca jam ñaajo nee na nag ba loolu weesoo mu may ko benn ngir jaajëfal ko ba tax rek mu ne abusé wul lii di confiance am waaye nag eh, Papa Gastro xam le na rek ne terrain boobee da koo jaay ab xaritam bu ñuy wax Abdou jaayee ko ko rek si njëgu fanweeri million ak juróom bu jot koo jox vingt cinq millions mu am am soxla xaalis bu jàmp ci diggante bi tax mu yëkkati waat même terrain ba daal di koy jaayaat rek keneen ku ñuy wax Y Guèye si njëggu fanweeri million ak juróom lu ñeel nag wàllum yàmbaa gi papa gastro la mu ci xamle rek moo di arrêté wuñ ko benn yoon ak drogue lu ñeel délibéré bi moom ñu ngi koy xaarandi rek fukki fan ak ñaar si weeru novembre bi ñu nekk noonu la yoo xuusee ci lu ñeel xibaaru ba tàggat yaram Bira Sène la jëwrin bu yor wàllum rek tàggat yaram fal mu wut aliwun Sarr dal di jiite lii di seen CNG gannaaw ba mu fa defee ñaar fukki at ak juróom-benn moom moomee di Alioune Sarr ñu bëri nag ànduñ si noonee Matar Ba doxalee ñoom ñooñee sax bokk na si Bekkaay Mbay moo xamle rek ni coppite boobee amul benn sens ndaxte rek nee na Alioune Sarr ak rek ka ko wuutu di Bira Sène ñoo bokk même démarche yi te làmb gi coppite dëgg rek. lañu ci soxla si noonu ne bekkaay nag euh, ne rek lu ñu bëgg mooy rekk ñu tànnal leen ab njiit ba nga xamante ne ni euh, day nekk ci biti arène bi ngir rekk ñu mën a am ay coppite ci lii di làmb ca CNG lay des ak yéen ba tey ak kaddu yu Alioune Sarr yëkkati rek gannaaw ba mu jeexalee moom nag ancien président CNG bi nag nee na rek mësul woon a waaj a démissionné ndax pare nañu rek ngir lépp ngir ànd ak seen dignité ak seen loyauté si noonu nag mu ne naam sax métti woon na waaye rek taxul mu deltu gannaaw benn yoon ba loolu weesoo Alioune Sarr ne nag ñu doon wax dañu doon rek lakkatu ci gannaaw caméra yi ak rek écran yi courage rek ñëw janook moom moomee te mënoon nañu koo fekk eh, ca CNG daal di janook moom laa laata muy yokk ci ay kàddoom nag ni eh, moom moomee rek mi ngi baalu ñëpp tey baal ñëpp waaye nag du mës a fàtte kàddu ya nga xamante ne ni ñu ngi ko doon yëkkati di koy teg rek ci ndoddam waaye itam def na lépp lu ko war mu nee na ba rek fu mu taxaw tey dana sigg ca kaw ndax rek mi ngi dem te amul eh, lenn la nga xamante ne ni mu ngi koy rëccu ci la mu def foofee ca CNG Euh, footballeur Samuel Eto'o daal dinay fësal lu mu bëggal kii di Sadio maane di rek mu remporter ballon d'or européen bi ndaxte rek nee na kii di Sadio Mané dafa bokk rek ci joueur yu gën a xarañ ci àdduna bi ba tax rek mu bég lool ci moom ci noonu nag Samuel Eto'o ne rek am na yaakaar ni Mané dina gagné titre yu bëri laata sax muy naan lu ñeel ballon d'or africain bi moom gëm na ni Sadio Mané dina ko gagné fukki yoon wala sax ñaar fukki yoon ancien attaquant Cameroun bi muñ koo xamle rek ci conférence de presse ba ñu doon amal fii si Dakar bu mu ne rek da ko bëgg lool gannaaw rek ba mu nekkee di savourer li mu jaar fii si Sénégal comme nu ngeen koy gisee noonu ci photo ya mu jot a jël. xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci joueur professionnel bi di Babacar Xuma moom nag daal dinay jël soxna kooke ngeen di gis ci écran bi ñu naan ko rek ab Chita Kane moom moomee nag mooy rek soxna international sénégalais boobee di Babacar Xuma nga xamante ne ni mi ngi rek joué jamono ji ak club turc d'Antalya Sport équipe Dakar Buzz yëpp nak ñu ngi leen di souhaiter heureux ménage di leen di ñaanal rek jàmm ju sax ñoom monsieur ak madame Xuma di leen di ñaanal ñaanal aussi jàmm ju sax dàkk yéen ñu ñu doon teewlu ci Dakar Buzz file la ñuy ndar képpee xibaar yi di jaajëfal Seydou si ak Mouhamed mu fare woon ci caméra gi jox leen dig daje ba samedi prochain way leen di ànd ak Dakar bés jaa ngeen jëf